chef de l'opposition indi na polémique euh, ci fan yëpp kenn ku ne yaa ngi gën di wax kenn ku ne indi sa version des faits alors yow Nafissatou Diallo <laughs> ban jàngat nga ci am waaw euh, xam nga damay faral di wax euh, chef de l'opposition turu opposition en tout cas ñu ngi ko njëkk liir en 2001 Ablaye Wade pour gëddal opposition moo ko ñëkk def ci constitutionnaliser ko ñu ñëw ba 2016 ñu yokk statut chef de l'opposition mais est-ce que c'était la première fois nga koy dégg xam nga déedéet xam nga dégg nga fi Tanor ak euh, yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana dégg nga Tanor Moustapha Niass à l'époque ñu naan kii moo ëpp député kii moo ëpp voix du déggoon ngeen leen coow boobu kan moo wax a nekk chef de l'opposition entre ñoom ñaar ñoom mënuñu fexe ba déggoo ni kii la parce que kii moo ëppoon ay voix mais kii moo ëppoon a cause euh, du scrutin du mode de scrutin proportionnel kële moo ëppoon député boobu yëpp bi nga koy dégg est-ce que da nga dégg benn yoon ñu tudd présidentielle est-ce que da nga dégg benn yoon ñu nekk topp ci Ablaye Wade après la présidentielle ñoom ñëpp on a parlé sur la base du parlement partout où il y a le statut de l'opposition c'est sur une base parlementaire ceci dit Ceci dit, ça c'est un débat qu'on nous mais parce qu'on veut exclure le président Wade mais Sénégal kenn doful. non non je, président je, je term... laissez-moi terminer kenn doful. bu ñuy wax opposition rek les chiffres les élections bu mënti am euh, le nombre de parrainages lépp loo xamante ni jànkonte la c'est-à-dire c'est la rencontre d'un parti politique avec les sit euh, les sénégalais kenn mënuñu ci. ñun gannaaw Benno Bokk Yaakaar quatre-vingts partis moo ko composé PDS rek ngay gis. moom mooy dem di am un million de parrainage moom rek ngay gis bu demee élection mën a taxaw jël topp Macky Sall te ñun fépp fu ñuy rawee Macky Sall dañ koy raw lu bëri mook Benno Bokk Yaakaar 80 parti ñun fi ñuy rawee dañu nekk au coude à coude c'est ça réalité du terrain mais loolu buñ ko ñu ko waxee dama doon wax pour le contexte général si sama opinion man ci affaire euh, loolu noonu mais je trouve que c'est une insulte mais la pire insulte aux Sénégalais que de parler aujourd'hui d'un statut de chef de l'opposition politiciens yi sonal nañ Sénégalais yi au moment où les gens ñi ngi ci Covid ñaata moor ñaata cas la ñu déclaré nit ñi ñi ngi sonn nekk ci coono am ay problème pour lekk pour naan mu am récession économique am euh, euh, tey ji Sénégal et en faillite tout le monde le sait ñu nit ñi di xalaat partout dans tous les pays africains euh, et même européens occidentaux asiatiques ñi ngi xalaat la relance de leur économie ñun ñuy wax ay Euh, statut chef de l'opposition nit ñi ñu ngi ci ndox mi ci mën bi sonn ñu ñuy wax ay statut chef de l'opposition yebaate yabaate weesuwul loolu ñun de PDS ñun loolu lañu tal taluñu xëccoo statut chef de l'opposition est-ce que est-ce que bu fekkonte ni boycotté wu leen woon élection yi jàll est-ce que tey dinañ dinañ am problème boobu dinañ am problème mu chef de l'opposition loolu laa la wax man ni la présidentielle ñun xam nga dañuy assumer suñu choix ndax waxoon nañ ko présidentielle boo xam ne da ngay dem Macky Sall dóor la gën laa rëy làmmiñ naan la da gañe naa la ndax tegul dara ci lu yoon il faut jamais participer à une élection biaisée dégg naa sax ñu ma tontu à l'époque bi ma koy wax ne ma ab Ablaye Wade dafa doon xam ni ko day perte mais da doon dem élection est-ce que mën nga d'accord ni yow Ablaye Wade il faisait il participait à une construction démocratique ba muy dem 78 di am ñaata député boobu xamoon na ne ni que mais isoloir amul Ablaye Wade moo xeex loolu ba ñu dem di yegg ci code consensuel il porté la lutte démocratique boobu foofu la ñu yemoon mais bu ñu demee ba am code consensuel d'accord ci code bu fal président Ablaye waat dindi ab du Diouf fal Macky Sall dindi ab Ablaye Wade lu jot code boobu yow nga nangu dem ci eh, processus électoral dem ba ci biir naan jotuñu fichier wak ah y a des nga nangu loolu yëpp dem élection ñu la dóoree bu ko kaas bu ko kaas tout le monde savait que cette élection bu ñu juboo woon def ni béjee def nii ñu ne ñëpp ñu bokk ak ñu bokkul ak opposition bi yëpp dañuy ànd ne Alassane Ouattara munoo présenté wu xaw ma nag luy xew suba mais dégg dégg nga déclaration pourtant moom dafa bokk recalé wuñ ko ci euh, kii bi xam nga Soro dañ ko dindi pour problème juridique Laurent Gbagbo dañ ko dindi pour problème juridique ñooñu dem nañ ba am 3000 mille seen dëkk Soro contre euh, ñoom Blé Goudé ñoom Laurent Gbagbo tey dañu nangu ñoom def front janook yi tey béjee dafa bokk ñooñu nag loolu la leen Ablaye Wade appelé woon ne bu kenn bokk te loolu la ñu signé woon au sein du C25 dañu waxoon ne dañuy ànd kenn du bokk ñu jàkkoo jàkkaarloog Macky Sall communauté internationale ñëw àtte ji élection du am est-ce que est-ce que boo leen boole woon seen bopp opposition bi ca jamono yooyu ngeen boole sama doon benn dànk xeex ak moom euh, ci kii bi mënu leen a gagné mais loolu moo taxoon ñu nekk C25 di xeex foofu ñu def communiqué wax ni ñoom dañuy solidaire de de recalés du parrainage dañuy solidaire de xalifa Sall solidaire de Karim Wade ba ñu d'accord loolu tënk ko Ablaye Wade war a ñëw Karim yónnee woon nañ fi yéen a ko bind ay bagaasam ñun ñëpp ñu ne dañuy jàkkaar faire front ñun xam nga lu ñu ci jot dañu xëy suba rek gis ñu leen ñii ñi ñu recalé wul ñuy dem campagne kon daal da jàpp ne trahison dafa amoon ci. Euh, loolu laa gëm ba tey moo tax nee naa na PDS lu muy def d' ailleurs génne woon nañ communiqué même local yi bu ñuy dem on va sous la bannière du PDS waxuñu du dem ak coalition waaye kuy ñëw ci bannière u PDS ngay ñëw. parce que gis nga Ablaye Wade à chaque fois bu tegee stratégie fu ñuy mujjee paa bi waxoon na ko pour pourtant waxoon na dëgg de waxoon na ko fii la leen wax ni Macky Sall ñëw ñibbi si taxaw fii def discours ne leen il va se déclarer nan ngeen ni mënee nangu parrainage boo xamante ni man bu ma njëkkee yegg si. man damay sama sama yëpp ay jàll le vingt-huitième bii dugal kooku ban chance la am pour jàll ñu nangu dem élection kenn gisul fichier kenn xamul lu ci nekk ngay dégg fraude yi carte euh, électeurs yi doublon yi yéen ñëpp ngeen koy dégg à ah, plus de huit cent mille kooku rawee leen huit cent mille voix nga ne da ngay dem ak moom élection te doo bloqué élection yi nekku na ñëpp bokk ñu woo communauté internationale mu ñëw rebolote carte yi en tout cas Bédié a pris une décision wane na ni que boppam ñoru ko parce que mënoon naa am prétention ne man recalé wu ma damay dem face kii na ma ñëpp ñëw jàppale mais dafa xam ne Labadia ngi ci mu ne moom day ànd ak opposition bi ñu recalé pour ñoom ñëpp ñu def face à Alassane Ouattara. mais l' opposition boobu noonu bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moo moo topp ci ki jël ki jël ki jël réew mi moom tamit moo war a nekk chef de l' opposition quand même. man chef de l' opposition déggoo ma ma wax la man la man li ma gëm fu mu am yëpp opposition parlementaire laa ko doon gis te tey jii nga bëgg nga bañ. comment tu peux mesurer sur des élections yoo xamante ni euh, Malick Gakou recalé Aïda Mbodj recalé euh, nu mu tuddati euh, ils étaient combien Abdou Mbaye recalé ah une douzaine Khalifa Sall moom bokkul Karim Wade bokkul les partis les plus représentatifs Macky Sall dafa jël ñu mu xam ne mënuñu ko gagné mu bàyyi leen ñu jàll ñeneen ñëpp mu dindi leen. ñooñu ñëpp amul combien y avait 28 dépôts non ñaata nit lañ ci jël cinq personnes ñoo ñoo ñoo dem élection yow nga ni c'est sur cette base là tu peux prendre ce, cette élection comme baromètre il faut être sérieux benn analyste politique bu am rigueur euh, intellectuelle même bu bañee PDS war na mun a taxaw ne mais loolu du baromètre élection bu PDS bokkul élection bu xalifa Sall bokkul élection boo xamante ni dañu jindi ñëpp recalé sur la base du parenage dem jël Issa Sall pur Euh, Sonko euh, Sonko euh, réew mi ne leen yéenay dem élection contre man Ahmadi Kenya mais c'est pas sérieux c'est pas un baromètre. troisième mandat gis nañ ko ci wax ku seen ñu dégome la ñu génne la ci <laughs> gouvernement bi noonu lañ ko mën a jàppee ndax jàpp leen nag stratégie bi du tra du stratégie wu déclaré candidat candidat wam en 2024. dafa yëklu rek ñu luy naar am na nu ko wolof di waxee naar bu ndaw bi lu mu dégg. xaw ma nu mu koy waxee am na nu mu koy waxee daal ci kii bi la ko déggee je nu mu koy waxee waaw euh, man nag dama ni du ma wax ci waxu troisième mandat xam nga man dama gëm ni nit principe ngay xeex doo xeex euh, nit te Sénégal fii politique bi damay na fi neexuma rek lu na fi wax même bu dee dëgg duma ci ànd noonu la ñuy politiquer troisième mandat waruñoo am fit sax Macky Sall di taxaw di wax waxu troisième mandat ndax loolu la porte en bandoulière ak dévolution monarchique. mais bu ñu sukkandikoo ci texte yi. porté en bandoulière ne troisième mandat dafa war a jeex discours am lan la woon il disait que c'était l'esprit parce que Macky Sall musul wax ni amul droit de juridiquement dafa doon wax Ablaye Wade alors que Ablaye Wade avait juridiquement le droit parce que il a été élu sous l'égide d'un autre de de de de la première république et non de la seconde amoon na ci droit tey dégg nga ñu bokkoon ci ñoom ay acteurs M23 ñu la ni amoon na ci droit ñun kañ dañu woon rek dañ ko doon xeex parce que dañu xamoon ni bu non na mais mais tey lu ko utale tey c'est pire parce que Macky Sall dafa taxaw fii ñaata yoon la wax ay ñu naan ko ay avilaak du avi gis nga man loolu duma ci wax man kenn duma sànni ay os à may wax ba sama put bi di wow pour mille vingt 2024 loo xam ne 2024 la sénégalais yi bu boobaa di dinañ jug jël ay solution pour xeex ak moom pour troisième mandat ñeneen ñi nag ñi koy dugal ci troisième mandat ah ne yi ne leen déglu ne leen déglu ak yi rek ba xam fu ñu jëm ak ñoom mais man moom duma ci débat duma ci perte sama souffle xam naa li ñu dese ci temps sax bareetul waaye faaw ñu aborder eh, clash bi nga xam ne moo xew ci biir opposition bi gis nañ Bougane Gueye Dany ak ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko eh, ngi ñi ngi nekk ci clash bu mag yow ban gis nga ci am. waaw ak waa réew mi ak hmm. tout le temps man je je dis que bu bu ñu affaiblirante il faut euh, moom loolu dama ko gëm. personnellement man de boo attaqué wul Ablaye Wade ak Karim Wade du ma joteeg yow dara booy opposant au contraire su ma munee jaay sax li ngay def parce que tey jii c'est la somme de toutes ces forces qui peut faire face à une coalition de quatre-vingts partis waxuñu ñu ànd parce que man dama gëm il faut plusieurs oppositions bokkuñu nu ñuy doxalee mais mën nañ bokk à un moment te mën nañ ni nañ coaliser pour def élection bi locale yi mën nañ ñëw ne nañ ànd ci ci gox-goxaan yi. lu ne mën na fi xew donc opposant bu ko affaiblir léegi nag ça c'est le jeu démocratique ils se lancent des pics mais je suis sûre qu'ils vont se retrouver autour par contre mais na ci dara opposition bi man je je pour moi c'est pas Macky Sall la ñuy def jowam waa APR di siñ ne ña ngay reyante di kontaan ñun ñuy xastante ku ne di wax sa taaru morom Macky Sall léegi soxlawul muy sonn day taxaw rek bàyyi opposants yi di reyante moom mu toogee ne ça fait le jeu de l'opposition et ça je le je je suis pas d'accord de manque de manque de maturité maintenant na am fu mu fu mu bañ a yegg kii sax s'arrêter man on ils peuvent s'envoyer des des des des des pics tontante men lu nekk na am limite boo xam ne c'est les limites de la défense bu mu passé yenn yi parce que waruñu fragiliser kenn waruñu fragiliser kenn waruñu fragiliser Bougane Gueye waxuñu fragiliser Ousmane Sonko waxuñu fragiliser Idrissa Seck waxuñu fragiliser ba keroog ñuy gis loo xamante ni def nañ ko ça va euh, euh, euh, loo xam ne du du du loo xamante ni pour opposition bi la mais c'est pour Macky Sall bu boobaa ñu mën a prononcer wu. par contre je voudrais euh, dans un autre cadre dire que man gis naa ay attaque benn journaliste boo xamante ni dafa attaqué vertement moo j'ai trouvé ça voilà c'est très très très virulent pour man. Euh, mesure war na am ci journaliste c'est-à-dire man personnellement terme yooyu kooku nga ko utiliser man dinaa la porter plainte parce que nit ki mën nga wax sa xalaat sans bañ c'est agressif man personnellement ça m'a profondément choqué parce que gis nga nit euh, nous tous nous avons nos défauts tous les hommes politiques ont leurs défauts mais il y une manière boo xamante ni xëy na entre opposants mën nañ dalante mais quand yow journaliste nga wala chroniqueur mën nga wax sa wax nga wodd wodd ko mën nga dut baaraam parce que tey son message elle a fait comme ce qu'elle reproche à Ousmane Sonko c'était c'était agressif c'était suffisant c'était insultant pour moi elle a fait ce qu'elle elle elle dénonce elle dénonçait chez l'autre def na ko parce que tey jii am na wax yoo xamante ni message am du jàllati saaga bi rek ngay gis te pourtant elle portait elle voulait dire peut-être quelque chose boo xamante ni pour mënoon na ko wax ci terme yoo xamante ni ne Ousmane Sonko mën na ko bàyyi xel mën na wax ni ah d'accord donc on trouve que j'attaque tout le monde je vais essayer de ne pas ouvrir plusieurs fronts lu nekk na nga koy waxee la rek donc loolu moom mënuma ci ànd maintenant les opposants les politiciens qui se lancent des des pics c'est pas méchant mais na am limite bu mu yegg ci humiliation humilier kii wala kële parce que ça va affaiblir l'opposition en général